Ikot foofu ngay am image foofu ik équipe Louga baa ngi nii Messi John Waram mooy seen 100 kilos Tapha Mbir de 100 Petit Babou ngi noonu 36 bi ñoo ngi noonu équipe Saint-Louis baa ngi noonu ah na naar na yàqale baas bébé Jali mu ngi ci biir mooy seen kilo borom raw gaddu fan yi ci arrondissement fim bi njool ni boy bebe jali Saint-Louis la demal de wa wa waa Ndar bin bi biñ jugee daaw Saint-Louis bebe jali prix de cent baa ni njool mi mooy kan Abdou eh? Abdou Diouf Boundar saint bebe jali ah. ya. ah boy booy bi daaw ñëwoon na kii nekkoon na si équipe bi daaw xool Saint-Louis wala ordinateur fan ngay kan ngay jëlal làmb ji nga ne ah Tamba ah Siaka Fall monument bu campement waaye nee naa waa Thiès Baldo ba Duudu Pascal bu Ndumbuj mu ngi noonu mooy seen Pascal daa ëpp 76 kilos c'est bon 86 kilos Waldo Badou nice taxawal foofu rek yow daa asma de <laughs> waaye làmb ji kay business see ngóor si ana laal yoon nee na tàmbaale jëlal làmb ji Tamba. Ah, vai. waaye yéen kan mooy plus de cent. Diaka mooy plus de cent. Monument mooy cent Valdo Badudu mooy quatre kilo, Borom Bayar. mooy 66 kilos yi seen 66 dafa ëpp daa dawi mooy Pascal Moni